waaw lamb ji yàggul. Eh, eh. waaw léegi tey de. yàggul waaw waaw. wax jarul muy bëri yow suñu dajee. Eh. yow dëgg la sa bopp nga xeex. barke alxuraan ko soo xeexee man guma la ba nga daw. acca amaja. sa tànk dinaa baax. dafa doon yor yëpp nga de. amaja nga jël amaja. àdduna ah, ñëpp xam nañ ni maa mën. xam nga Sénégal moom dañuy jaawale. waaw mbër ak ku xew. amaja daa xew. mais du mbër. kañ ngeen war a bëre. le 24 novembre. lan la dugal ci Ama Dia. Ama Dia bëgg kaa daal rek war kaa daal dama ko bëgg a feeñal wane. yow mun ngaa wane Ama Dia. xam nga daf daa daa ñëw waaw. daa indi benn turam ñu daan ko mu changé tur. ah daa ñu. ñu daan mu changé waat tur. Ama Dia bii la ñëw yàlla ubbil ko si muy naxe. waaw. Ah. mais nëf bi du naxakat di jaaxal waay. non moom ban tur la njëkk a indi doo bàyyi li nga wax. waaw oh, mooy yam indi na fi ñetti jours demoon naa ko dégg rek tuddee na patron boppam ñu daan ko. mais ba ko yaayam ne boo ama boo mën a waatee ñu daan la. waaw yaa sa jabar da ngeen di ànd. gën a gër bi. waaw xam naa ni si la ko nitu yàlla indi. mais yàlla boobu. day mel xam naa ko xam noonu. kan am. am moom muy ndamoo dañ ka daan suñu côté bee ba mu tas. am dara am bëri la woon dañ kaa daan suñu am dana bëre. na tudd ay côté Serigne Diop 54 bi noonu. am man mii moom xam na ma bu baax a baax jox naa ko suñu ASC déggoo. waaw waaw ñu mënee ASC bi 1 0 mu ne ñaara ñaar lañ teg man ko 4 4 4 mu ne nañ teg 4 2 2 man ko kon dañuy manqué kon ko aayul. mu ne nañ teg 4 2 2. am eh. nga ko dañuy manqué. Papa Touré laa tudd. waaw yow sama yaay Kumba Mbaye la tudd. Ah. déedéet sama pa sama yaay. non déedéet nga bañ a dugg ci loolu. papa Ousmane parce que Dia mbëru askan wi la de. Ama Dia laa la Ama Dia bu bis baa dina ya? sama koñ la ñëw chaque jour day wër liggéeyam waaye nee naa ko lu gën a yomb laa koy defal kay na ñëw e mu héberger ko sama néeg. non bu la 24 mu ñëw ñu ànd ma duma ko daan non non non man xaw ma fu mu dëkk te moom xam na fu ma dëkk xam na fu ma luwee xam na suñu kër fu mu dëkk. yaa ko dëkk nag dégg naa dëkk nga ko fu ne. yow xam nga ne man fu ne laaj ko man dëkkoowu ma kenn man du ma gënee kenn man damaa saf làmb man mbër laa man bu ma bëree mu neex su ma feccee mu neex su ma waxee mu neex. mais Ama Dia moo la gën a neex ndax neex. suukar du bàyyi neex laa neex neex. suukar du bàyyi neex laa la wax dégg nga ma. te sama ah. maam nee na ma boo borom jaala neex a jàngal yut borom jaal. bu neex a jàngal ñu. te mën a waaw xam fi nga jëm ak a gën. ah. jii li maag Amadia bu ñu a fii nga tax sa gémmiñ. kon le 24 novembre mais Aba Aba a na añi Aba joxe na ceeb Aba fi mu toll nii dajale na ko 1 million te combat bi Amadia ba da ciy gën am jàppale. sa waay loolu wóor sa gëm la mais man ñi may jàppale ñoo mën fukki Aba. déet a Amadia daa baax di woo Aba rek mais Aba a wu ñëpp la. Aba Sénégal lay dundal man daa am ñu nak mom dam ñoo am dañuy bëgg Ama nak moom mais Ama da daa baax di woo Aba rek mais Aba ñëpp a koy woo li ma am ni woo sëgëm la de mais Aba Abaawu Sénégal la Abaawu monde bi parce que Aba day bëgg ak jaam ñi na bàyyi daw làkk bu ñuy def di wéeru. non déet boppam mais Aba doomu yëmbal la moom it Ama Dia doomu yëmbal la. mais man yëmbal laa dëkk. yow mi yëmbal nga dëkk. man am tuwa laa dëkk 54. magasin Serigne Diop mooy sama koñ Ama Dia day daw di làkku. damaa dëkk ak ñi ko xam bu moom ñooñu dañ may jaay mais lamb bu mu ko yaakaar si eh, am na doole. ndax combat bi mu def caatu yoof numéro 2 gisoo. waaw caatu yoof numéro 2 wérul. wérul kooku yow jii li ban kelal yow potox lu génn sa bop kii ngay bëri samp boppam loolu ban kelal xanaa Amadia daa mënoon pi daa waroon naa pivoter wala caax yox ñëwër la buñ la ko xaa ha digal toog tank la bu ñew way ñu bënd la nga daw jiital sa bop lo est-ce que du koom ah. Ama Dia boo taxawee nëb dina la door nga daan. mom mom mom comme li wër li muy wër di wax nonu naan ay damay xéx mom sama papa bu mangé mo néma bu xéx manoko papa taxawal né ya damay xéx ak Ama Dia lo force la ah. day xeex bu met bu taxaw naan nii moom. sa bopp na ko jëss ndax ma ko yéegee bu ma ko ko ku ci daan. yaay roi wu booy damay ragal nag Modou Lo si ñu fàtte leen ndax damay ragal maag Ama Dia combat roi yaay doon roi sa génération Ama Dia nag moo ma mag waaye ñoo bokk génération di laaw. ah. bu ngay seetaan noo na waajal dem entraîné ji ta xam ne lépp am na bokku la ñeneen ñi de te Mansour bu bari fay la waaw musul bëre sax deux cent mille musul baax bëre bu bari lañ fay un million million ku la ko jox avance ndax na laa fay kon na waajal woo ay nitam ñu jàppale ko sama nit nag nañ ma ñëw jàppale ni am koo xam ne daa xew lu mu laal yàlla teg si loxo hmm. te borom tun moo mën borom dama boobu borom kuni ñëw jàppale ma borom kanay topp ma na la waaw maa ngi woo ñëpp nag waa parcelle am borom kun la de am mënul am borom naanaay am waay daa mën dara naanaa kanam naanaa ginnaaw naanaa ci diggante bi am am dara laa am mënul nag xaatim bu ñëwee ma jàngal ko ni ñu dagee xaatim du dag xaatimu Souleymane du du dag xaatimu dara man lamb nag maa soxla sama retour si Ama lañ koy confirmer. bi mooy combat. bi sama onzième combat trois défaites laa am lamb. nëb mais yow nëb bi sa palmarès bi na am si lamb caatu Fora moo ma daan caatu Rëbës maag bu dama kaa daan arbitre naa maay seegam tes ba ak def nga lu ne waaw. Hmm. man wax wax ba bu ma si bëral caatu Fora dama ko boor bakkan bu dama ba deuxième temps bañ koy moom bu Siteu waaw te moom sax daa daw dam waaxu waa dem jële ay làmb ay alburaax ak ñooñ noonu ah. te woo nañ ko fi mu daw pour yàgg bu Siteu mag mag kii bii nii contrat la woon rek mais xamoon nga maag Ama Jabi la kat bi war na fi ak ñu tàkkali ko laa yëmbal sama sées afa teg su suma daanee Ama Dia ñeneen ñi nañ ma xaar wax naa ko ñeneen ñan non bàyyi li ngay def na ñooñu ma duggee fenn du oh. noonu est-ce que lii laa li def du ma tudd seen tur nag xam nañ ma xam dañuy daje fajar gi te lu ma def lu ma def fajar ñu dem nettali ko nañ gën a nettali. mais nag yow combat bi instant yii est-ce que pare nga nii. li muy gisee nii taxawaay la 24 novembre. waaw nga xam ne man mbëre état bi nga indi tamit daanul daanul. am man xool ma maa ngi wax rek di ñàkk même pas cinq minutes. xaw ma dëgg la moom yaa ngi ñàkk moom. damay liggéey de entraîné na ma pour Ama damay entraîné pour waa Yëmbal. Hmm. ji la aw ma volume de gis nga ma. ama benn volet lu mës a am ab domino kii uma de xam naa lu ñuy utee Grèce mais du ma ko uti xanaa si plus Modou Lo ndax woo bëgg dem Modou Lo waaw le roi des arènes le roi des arènes ne la lan ne ma ma pare mu neex ma mun nakaru damay dem regroupement da ngay dem regroupement waaw dem regroupement de ku may jeesu nag ma teel a jeesu ma duggee. regroupement su ma duggee regroupement du ma génn. ama ci am na problème. am na laa ilaaha illallaah. bu dee le roi moo la woo. daf maa woo ba pare tamit li ma wax dégg naa ko li ma dig xam naa ko xam na waaw. li ma la wax nag ak sama yeneen nit combat bi ñi ma bawoon ñëpp a ñëwaat am na ñoo xam ne bawuñu woon dañoo gën a ñëwaat mais ñi ma bawoon woowaat nañ ma te liñ ma wax dégg naa ko ñoom li ma leen wax dégg nañ ko la 24 nga xam ne nëpp ñëwul mbër mi ñëw. bu xeexee daanu bu bëree daanu ah maa mën de mag ñooy bëre Ama Dia bu demoon Sénégal du raar troisième âge la. làmb doy waar rek mais ne bu ma tudd Ama Dia mais loolu la 24 lay teñ. leer na nañ la 24 bu. waay waay la la ay nëb waay nëb waay adversaire ay nëb waay ma ngay daanu ay nëb waay. waay adversaire Ama Dia waay la ilaha illallah rëj tekkit rëj tekkit rëj tekkit la ilaha wala tànk yi non liggéey na Ama Dia am na problème Ama Dia am na problème am na problème am na problème